من يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موكج الأمر جامع سوكسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غنا أبو سنتي يالا دولي سنتي يالا بباه دي سنتي يالا من يومي كاتن من يفكي بين ديال سوا دي دفتاني فجر ديو الحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما أبدا الحمد لله كثيرا الحمد لله على كل حال moƴni ñu ngi sante yàlla sante bu amut aaba amuda di julli si yonente bi salallahu alayhi wasallam ak waa kiram ak sahabaami ak képp kam yaa ngi topp sunaam bi ba yomal qiyaama di ñaan yàlla subhana taala yàlla mu yàlla boole si yàlla ñu xëy jaama indoo ko fanaanoo ko yàlla muy jaamal yàlla mu yàlla fal jaama yokka ñu sutura yokka ñu kàttan yokka ñu wér képp ku feebar nekk ci lopitan bi nekk ci kër gi yàlla muy saafaraal yàlla na yàlla saafaraal yàlla na yàlla la dee sa sago yàlla subhana taala solal ñu wér mbu wér bu ànd afia yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya jilluti jiitu yàlla yërëm leen yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rawdatu min riyaadil janna yàlla dekkal leen jannatu firdawsi ma allazi anama allahu alayhim min annabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ندويا يا لسامل عارلين حالين بيها إيكو تغلسيون سيئات المستقيم يا لورسقالين حمهم ورسقالين لغي ورسقالين على نور باه جيجين يا لساملين يا لدفن يحيوالي آجنا يحيوالي إلى مجرم سفرة mbokk jullit ñu ñëwaat fii si daara yi muhammad sallallahu Alaihi wa sallam di jàngalekat bu mag boobu tey ñu indi xadis imam muslim yang bi alayhi salatu wasalaam di wax ne ki gën a suufe si waa safara mbugal ndik safara tamit dafa am ay daraja daraja maanaam ay kalaas kalaas si mbugal mbugal safara te yàlla nañ si yàlla muccal bu mu si mun a doon rek yàlla ci yàlla yàlla ñu yàlla safara comme ni ko yonent bi aleyhi salaatu salaam si hadis mu ne ku muslu si safara ñetti yoon yàlla subhaana taala dina suma jaam bi si man dégg jaam bi dina def dina jaamu yàlla jaamu yàlla boo xamee ne e, yàlla dina ko ci yërëme muccal ko si safara hadis imam muslim yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax ne inna adna naar naari azaban yantaxilu binna alayhi min annaarin yaxli dimaauhu min xaraarati na alayhi subhanallah ki gëna tuti le ki gëna tuti le mbugal ci wa safara yi subhanallah ki gëna tuti le mbugal ki xamni mbugalam mo gëna a moy kan mu ne ki nga xamne mbugalam moy ki sol dala xam nga comme ñu ne daala yi de mu nga ko sol manam tangor bi nekk ci suuf dina do mu na yek tangor bi ndik yaangi sol dala ñu ne ki sol daala si biir safara boobu te gën a néewle mbugal mooy kii nga xam ne mu ngi sol ñaari daalaam si biir safara waaye tàngoor bi nga xam ne moom la moo yëg si ron daalaam rek tàngoor bi moo yëg si ron bi moo boobu mooy waral yuuri boppam ya di bax inna lillahi wa inna subhanallah yàlla ñu yàlla mosu safara bëgg naa mu ne ki gën a tuuti la mbugal sa safara ki sol daala di yaakaar ne daala yi mun nañ koo dimbale ba du yëg tàngoor bi ah yi sax am na mu wàññee tàngoor bi waaye kooku ak daala yooyu nu moom mun a mun a wàññi tàngoor bi si moom mbugalam mooy ne sa nam taxawee ak daalaam ya si safara ba tàngoor bi eeg na ci kaw ba yuuri boppam di bax ndik tàngoor bu métti subhanallah te ñu ne kooku moo gën a oyof le ci safara yàlla ñu yàlla musal ci safara mbokk jullit yi waaw yaxli dimaahu min xaraara naxaley maanaam tàngoori daalaam bi daala bi tànga bi mu tànga moo waral yaram bi tàng na ba egg ci sa boppam bi yuuri di ba ndik tàngoor te mu ngi ko yëg mënut a daw mënut ta def dara subhanallah muy mbugal boo xam ne yaa ngi yëg sa yuur yuy tànga jër jër jër jër bay baax moo ko jotee ñun ñuy ko fi am boppa bu métti léegi-léegi subhanallah dangaa tago dangaa bëgg a taagoo ak sa sago ndig boppa bu métti rek naan garab bu nekk naan nga pen kila bu nekk pour boppa bi seeda subhanallah léegi nga enu bi téye ko bos ko muy métti mbokk jullit yi loolu àdduna la ki nga xam ne nag mbugalam mooy ne yuur yi ñooy ba yàlla ñu yàlla mucal si yuur yi ba yàlla ñu yàlla mucal si yuur yi ba يلا يلا متسي سفرة يلا يلا متسي سفرة يلا يلا متسي سفرة يلا مي أر يلا أر مي مشاري سفرة ويلا يلا مي أرجنا يلا يلا مي أرجنا يلا يلا مي أرجنا يلا تفن يهولي أدنا يهولي الله رحمة مشاري سفرة مي ربراتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مي حديث إمام مسلم آه، دينيان يالا سبحانه وتعالى دفن يهولي أدنا يهولي الله رحمة مشاري سفرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين